bismillaahi abtadi wa binnabi abtadi hubbal xadim artadi di way sëriñ Abdou Latif édition ren bi di màggal bi ñuy fàttaliku Cheikh Abdou Latif Mbacké ci Touba Sam yemoog woon àllarba fukki fan ak ñaar si weeru juin 2019 El Hadj Aliou Sylla di taalibe si kër gi ñu ràññee ko si taxawaayam si wetu Serigne Cheikh Abdou Latif di xalifa kër gi taxawaay bu mat sëkk la si am bisu màggal gi si suba si Aliou Sylla si këram gi nekk si Madiana nemmeeku nañu ni lu takku si ay teranga ñu mën si ràññee ay boisson ndox ak yemu àndal moom la tàmbalee convoyé ko yóbbu ko ci pencum sàmm jébbal ko sëriñam sëriñ Abdoulatif Mbacke ngir nag gan yi ñu mën leen ci toppatoo naka noonu ci dëgg bëccëg bi ñoo ngi ci màggal gi ziar yi tàmbali na mbokk taalibe yi bàyyee ko fu nekk ci biir réew mi ci biir dëkk bi daayira yi ñëpp teew waaye nag àll si la moom laxasaayu doon magub taalibe gën a feddali koloreem cofeelam ak jaayante gi mu amal ci digganteem ak sëriñ Cheikh Abdoulatif ba ma waral di ko seen ci organisation bi mu jàpp saa su nekk waaye nag yemul foofu si bëccëg bi delluwaat na këram ngir saytuwaat bernde yi xéewal yi nga xamante ni ñu ngi ko fay togg. doon nag lu takku sax nag si ay mana ñu koy seen nii njabootu boppam gi ñoo nekk si waañ wi nii lépp di firndeel jaayanteem si yoonu Serigne tubaab bii naka noonee jigéen ñi nekk si orne yeeg yooyu ñii ñu ngi xol yi ñuy xaar nag mbir yi mat ñu fa seene ko tamit jébbalaat Serigne bi si ay bool yu bare te takku si diggu bëccëg bi ni ko amale woon suba si noonu lañ ko wéyalee fa seen a jël xéewal yu yóbbu ko mu agsee kontaan loolu la def moom si boppam moo jóg ñëw saytul ko boppam El Hadj Aliou laa des si ginnaaw moom it si organisation bu am solo ngoon si ñu wéyal ziar yi kilifa yi bàyyi ko fu nekk di ñëw mën seen nemmeeku sëriñ Moustapha Abdou Khadr Mbacke Cheikh Bassirou Abdou Khadr Mbacke njabootu sëriñ Touba gi bàyyi ko fu nekk ak Cheikh si ba si autorité administrative yi ku si mel ni monsieur le sous-préfet de Ndam yëkkati moom it ay kàddu kaddu seede jëmale ko si sëriñ Cheikh Abdou Latif ma gis nag moom taxawaayam si mu nekk ki nga xamee ni la ma gis yi moom rafetlu naa ko lool lool lool te dinaa ko témoigner yàgguma nag fii xëy na le 20 bi laa fi am at waaye gis naa si moom bëgg bi nga xam ne bi bëgg na xam nga dañuy bare di wax ni balaa ngay kaala kaala balaa muy tabbi si bopp daf koy takk si ndigg li ba pare te chaque fois wax dëgg yàlla su ma ñëwee résidence Xaadimu Rasuul dama koy fekk ngan dem ceinturam mu takk si ndigg li mu takk si ndigg li pour wane ni moom taalibe la day liggéeyee liggéey ko tax la teg tànkam. programme bi diwee yi ba si guddi gi Alla Sylla nag fas yéene delluwaat këram ngir nag waajal reer yi laata boobu nag amal na déclaration wax si doy bis bi digganteem ak Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké ak. taxawaayam si kër gi. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki murid yi sama mbokki taalibe yi waaw taxawaay gi ma am ci màggalu saam li ma ci mën a wax mooy man damaa judd rek ñu jébbal ma sëñ Abdou Latif xaw ma lu dul moom. waaw fii moom dëkk bi dafa am lu mu laaj mooy comme ni ma koy waxee rek sama biir wax toujours moom laay confirmer fii man dama bëgg ku ma fi am lente na am lente ngir jëmi sëñ Tuubaa loolu mooy lii bu politique jógee mën ngaa politique waaye bu jeexee da nga koy jeexal nag bu sëñ bi soxlaa nga jëm taxaw ci soxla sëñ bi man noonu laa bëgg a dundee ci dëkk bi. waaw bis bi mooy loolu dama bëgg a xam ni ñëpp xam ne rek man mooy sama bés bokkuma nag ci ñi nga xam ne dañuy wër tey la sama bés suba la sama bés dama bëgg ku ko dégg te xam ne sama bés la daal boo lëgee demoon ak jàmm nga xam ne man lii mooy sama bés amoo beneen bis bu boobu sëñ Abdou Latif li nga xam ne mooy ay yitteem rek sant gi mu ci doon sëñ sant sëñ Tuubaa man ci laa bëgg may itam continuer di ci sant sëñ Tuubaa di ko ko ci sant lay tamit bañ xam ni rek sant nañ loolu moom mooy sama bis te moom laa fas yéene def sama bis waaye man daal taxawaay bi ma bëgg am fi moom moom jur damaa judd na xawma lu sëñ Abdou Latif yàlla dogal it moom bi mu demee ba doon magit boole na maag sëñ Cheikh sëñ Cheikh mel na ni am na cofeel ci man ndax lu muy def lu ne danañ ko waxtaane kon daal suñu kër a ngi ñi ngi ciy soññi ñëpp di ci soññi nag bépp taala bu nga xam ne déwén ak jàmm dégg nga ko cant gaa ngi rendez-vous bi déwén la dañoo fas yéene di sant bañ xam ne ñun sant nañ ni ñu ko defee nii ren daal ba dara manqué dañoo fas yéene bu déwénee mu raw fi nemmeeku na nu màggal gi bu teru taxawaay bu ma sëkk la si am moom Alla Sylla digganteem nag ak Serigne Cheikh Abdou Latif ak kër geeg na lu yàgg te nag sax tax na guddik màggal gi sëriñ bi da koy ngana si fanaan si këram doon nag lu rëy si Alla Sylla édition màggal sëriñ Abdou Latif Mbacké 2019 bii de cant la si Alla Sylla mi jàpp ni lépp lu mu def saa su dellu sey day gën a yokk si côté nit ñi xam ni fii saam la sëñ bee ko sancoon sëñ Abdou Latif nag moo ko suuxat suuxat googu mu ko suuxat nag ñun amuñu lu ñuy xool ci moom daal fas nañ yéene daal lu nga xam ne lii soxlay sëñ bee ñun danañ taxaw ci loolu amuñ ci daal luñ ci xel ñaar dañuy daal taxaw rek def loola